yéen ñi safoo di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun daleen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi dañu koy door ak njàng mekk njàngale mi ak jëriñ bi nga xam ni moom moo gàlloo wàllu ko njàng mi moom nag ki nga xam ni moo yor kàddoom àdduna si ñaawteef yu élèves def ca euh, CM bu aan ndax nag euh, sàkku nañu rek ñi nga xam ni ñoom ñoo jiite école bi euh, ngir rek ñu daal di xayma tolluwaayu la fa ndongo ya yàq ngir rek ñu daan leen daan yu ni toll ndax doxalinu élèves yooyulee kenn rek du ko daal daal di nangu boobule doxalin nag nee na rek njeexantal bu bon bi nga xam ni moom la sociaux yi am ci ndaw ñi moom moo ko undu ndax rek moo leen di def loote duñu xalaat ñoom nag élèves yi ngir wane ni école tëj na moo taxoon rek ñu daal di rajaxe seen classe yi xotti seen kaye yi waaye itam seen uniforme yi itam ñu daal di koy xotti daaneel table banc yi muy jëf ju ñaaw joo xam ni tàmmuñu ko rek di gis eh, ci école sénégalaise bi gannaaw CM bu an boobu nag waa lycée Sindia feeru nañu leen eh, eh, a ëppal ndax saalu professeur yi lañu daal di dem dajji buntu ba ba noppi nag taal ko ba tax cahier de texte ya fa nekkoon ak fichier de pointage yu élèves yi yépp daal di euh, tàkk euh, loolu nag moom moo waral euh, ba censeuru lycée bi daal di woolu waa gendarmerie bu Popenguine ngir rek ñu gis acte de vandalisme boobu nga xam ni moom la fa élèves ya def li njëkk a ci enquête bi nag wane na ni document yi nga xam ni moom moo fa jot a lakk classe cinquième ak quatrième bu CM bi nga xam ni moo bokk ci lycée boobulee la soxal école sénégalaise set ba ci banjul nak lu metti te doy war mom mo fa xew ndax lu tollu ci ñenti élève ño fa dal di faatu muy ñaari goor ak ñaari jigen ñom nak nenañu gannaaw bi nga xamé ni dañoo paré seen ay cours euh, dañoo rek dal di dem plage te wuñu seeni waajur waaye itam wuñu kilifa yi école ba ci nonu nak lañu labé ñom ñenti ñepp ba dal di fay ji nak ñaari neew yi rek lañu gisagum euh, kenn ki sax fi ci Touba lañu ko andi ngir jébal ko boromam muy nakar bo xamni nak wacc na ci wajuru ndongo yi waye itam euh, ci wa école ba yëpp bu ñu jógee si njàng mi dañuy rek daal di addu li nga xam ni moo soxal wér-gi-yaram ngir rek dëgtal leen tolluwaayu mbasum covid 19 bi ak xayma ba su tey bi yem ko àjjuma fukki fan ak juróom benn si weeru juillet atum 2021 waa ministère de la santé xam ne nañu ni si ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak ñetti test yi nga xam ne moom la ñu jot a amal juróom-ñaar téeméer yaak fanweer ak juróom-ñetti ñoo si am doomu jàngoro ji mu bokk sa ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ñoo xam ni dañoo jaxasoo woon ak way tawat doon leen topp ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti ñoo xam ni ñoo ngi doomu jàngoro ji te kenn xamul ku leen ko wàll ñaar fukki cas ak juróom-ñaar am nañu ko ñi nga xam ni ñoo nga ndax bi dalee na lottal amul kenn nag koo xam ni faatu na yees ci euh, mbas mi lu toll si nag téeméer ak fanweer si ñi nga xam ni mbas mi tëraloon na leen ñoom euh, wër nañu jamono ji nag ñeenti junni ak juróom téeméer ak ñaar fukk ak juróomi way tawat ñoo nekk ci loxol euh, docteur ñu leen di faj ba léegi ñu des si lu soxal mbas mi ba tey ak cas yi état bu senegal nag ngir taxawu li nga xam ni ñoom ñoo nekk ci Sowétas yi euh, commandé na lu jege 63000 mètres cube litre oxygène euh, mu tolloog 63 millions litres euh, ci ay fournisseurs njëg la nag dina àgg si ñaari milliards kopparu CFA docteur Ousmane ja moom moo ko xamle di woyal addu ci leneen di lu soxal boulanger yi ñoom nag ci xeex lañu nekk ba tax rek ñu ni njëgal mburu mi ñoom ñoo koy xaymaal seen bopp te fii ak ñaar fukki fa ak juróom benn ci weeru juillet bi ñu jëm dinañu bàyyi nag di defar 190 grammes bi ak bu 65 grammes bi ngir rek tàmbalee defar yu 230 grammes ak yu 125 grammes su ko defee nag ñu koy jaayee 200 euh, ñeent fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm bi nga xam ni nag moo yor seen kàddu ñoom boulanger yi di euh, Joseph xam euh, xamle na ni rek jafe-jafe koppar bi nga xam ni ñoom ñu ngi koy jànkonteel ci seen liggéey lu toll si fukk ak ñeenti boulangerie yi ñu daal di koy tëj foofee ca diwaanu luga ak juróom fukk ak ñaari boulangerie yoo xam ni ci Ndakaaru tabaski bi ni ko doon dogal bi day tàmbali bu yàgg ñu dem ca diwaanu ko Touba euh, foofee nag benn jege ñaale wu Macky Sall la ñu fa daal di euh, tëj ci kaso bi ndax euh, mbirum escroquerie moom nag Libaas Laay Mbuub lay wuyoo di njiital parti sénégalais pour l'action et le développement bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar tabaski bi nag ci kaso bu Jurbel la koy daal di fekk ndax niki démb la ñu ko daal di dëglu dëggal mbiru escroquerie bi nga xam ni moom lañu ko doon toppee te mu def ko lu ëpp ñaar téeméeri doomu aadama ba tax rek ñu daal di koy daan benn ati kaso mu bokk ca nag ñaari weer yoo xam ni da koy daal di tëdd moom nag mooy ki nga xam ni moo doon nax nit ñi ci lu soxal rek euh, financement DER yi te nag doon récupérer seen xaalis ngir gëm loo reen ne dina leen euh, jàppale ba ñu daal di jot ci financement yooyu lee la ñu ndar keppee xibaar yi ma jox leen dig dajee ëllëg incha allah waaye laata boobu woye leen di abonné ci cinq TV te bu leen fàtte ba si cloche bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa jërë ngeen jëf